gannaaw élection locale yi ñu doon amal niki dimanche bi ñu weesu coalition Yewwi Askan Wi daal di am ndam ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci Golf Sud Lat Diop mi nga xamante ni moo fa teewaloon waa Benno Bokk Yaakaar amal ab ndaje ak ay partisans woom ngir jaajëfal leen ak it xam le ni bépp engagement boo xam ci jëloon na ko ngir askanu Golf Sud dana ko wéyal. campagne bi ko def kàddu gi dafa jiwoon bàyyi la ko dund danaa ko def am na lu ma jógee woon laay jaay danaa ko def am na lu ma jógee woon seen kàddu yi naa ko continuer ndax man dama gëm nit ñi def lu baax am lu mu wax ma nekkoon démb ak bëri démb lépp loo ni mën naa ko di ko doon lépp loo xamante ni mën naa ko di géejawaay du ma ci géej ñoom mën naa ko di def parce que li may wax naan politique population yi ma dugal lu dëgg la ci man financement yi day continuer jeunes yi dama ne duñu gàtt dara dañuy jox xale yi mairie bi man amoon naa def ay terrain synthétique boo ko mairie bi defee joxe ma defal leen mu nekkoon ndaje mu bari émotion ku ne ci partisan yi bëggoon jël kàddu kii di DG bu LONASE Lat Diop moom di leen gën a soññ la def ngir ñu gën a dëggal taxawaay bi. man nag yàlla dafa dogal am na lu na yëngu ci ci politique. am na loo xamante Sénégal war nañu ko arrêté te lii ñu daan ñàkk a jëm am na homme politique yoo xamante il est temps ku nekk Sénégal jël seen responsabilité baare leen yoon bi gën a mag ñu xam ko mooy neex a dëgg bañan bi weer sa morom wax lu dul dëgg sa morom yàq sa der ci lépp ci politique ni. Sénégal yi ñuy tàmbali di fajante te loolu mu ngi bëgg a jéggi tey ñun nag li ñu a nekk suñu taxawaay mooy ñu defarwaat bu baax a baax a baax yëf yi day door a tàmbali day door a tàmbali donc nañu gën a defarwaat maa ngi am ci yéen yaakaar ci nii ngeen taxawee ci nii ngeen ma accueillir fii ndax te dara la lanu ko ñu dul bëgg ñun suñu campagne bi man du ma delloo lépp ci yoxu borom bi tey sant sympathisant ak militant yi moo di yenn ci kàddu yu candidat Lat te tëjee ndaje mi tey xam leen ni it lu jëm ci wàllum teg gazon sa terrain bu Golf Sud yéeneem moo di àggali ko ci ndigalu maire bu yees bu Golf Sud.